actualité bi actualité bi ci bu si gën euh, moom mooy euh, agression yi nga xam ni am nañ ko ci weekend bi ba ay jaas yi génn ci ay moto ñu sàcc ko ci am image boo xam ne wër na Sénégal gi yëpp ñu di ko ñaawlu ci la ñuy dikkaat incha allahu rabbi. incha allah ziar sama yaay ji maman Dak noo di fekk ak yéen ci émission bu mag bi lee te la wax namm naa la di nuyu Hadj Ndiaga Fall bu baax le futur maire de Thiès. di nuyu di ziar Kër Cheikh Moussa taalibe Cheikh bu mag bi di nuyu professeur éminent professeur. Euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ñu ngi seetaan à travers la Sen TV di kontaan ci dugg beeg présentation beeg. Ah, yu baax yi ma ci ma ci wax welcome rek. naanaan la dama camarade la parisienne <laughs> mu ñëw Sénégal en vacances. aussi di fay. chérie Lena ak maam Fatou maa ngi lay nuyu bu baax di la wax soyez la bienvenue. ok ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax yaay mbaa indil nañ ma chocolat. waa ñëw na. ah kooku parisienne bu mag a mag la. waaw ah. madame Faye. Ah, waaw waaw day indi chocolat ak yu baax. Ah, waaw waaw caatu kër dañ koy neexal te may taaw may caat man dama doy naa waar. waaw il faut mu lay neexal ne sama sœur waaw may taaw may caat di njëkk juddu njëkk baax te néew ma kenn bonool ba caat. si gi terew ko dara lu baax. déedéet nee na ko la neex defar. waaw. ayca mi ngi doon profité nga ne. dawul sama yaram sax. <laughs> nuyu naa la sax nag waaw kii sama nuyoo bu gën a neex professeur laa koy dencal. droit de d'honneur. droit d'honneur. droit d'honneur. waaye wax nga ba noppi nuyu naa la nuyul rek. man yi ngay wax noonu dawul sama yaram laa wax ñu jëm ci fii nii ñu fal ñu jëm de déglu ñu neexal ñu bëgg a dawul loolu dawul suñu yaram. Moi, moi, je ne ah, là, les jaloux vont maigrir. et s'ils sont déjà maigres, ils vont mourir. Il n'y a pas de souci. Nous, on n'est pas maigre Heureusement que Dieu tu es merci. gros. Gras, comme le chocolat. Fall <laughs> maa ngi leen nuyu bu baax. professeur. di nuyu chers téléspectateurs de la chaîne leader yi nga ils sont tout le temps câblés connectés scotchés ci la Sen TV di nuyu non valeureux technicien de nuyu askanu Sénégal yëpp. di leen wax sant nañ leen bii gërëm nañ leen bii ah màggal nañ kulluhum di ñaan yàlla yàlla na yàlla jàmm Sénégal. ak àdduna wërngël képp Asma bonjour. bonjour coach Moussa professeur Ming ngi may ni chocolat su ma ko tontoon naan ko lu sa xam. mu ne ma man damaa sañ wala dama kay tooñ xam nga wax nag. Hmm. day am tontu. te nag loo wax xam ko yërëm yërëm ko rek. ma yërëm ko waaw si c'est fondant tey wala ay tablettes wala. mais man il ma toise ce matin maman il me cherche ce matin. à croquer loolu la vraiment loolu la dëgg dëgg bëgg ay wax te bëgg ko tooñ. c'est à croquer ou à. bëgg monsieur Touré doon yokk loxo. Ah. waaw déggu dégguma dara. xam ngay professeur boo ko seqee ku bëri feem. da ngay bëgg di ut ay inspiration. mais tey moom am nga inspiration ni nga duggee ci plateau bi. Euh, introduire affaire yi moom macha allah. tubarkalla di wax ay soxla ñun soxla ñu lañu soxla soxla ñu ay tablette ak professeur bonjour. bonjour asma <laughs> en tout cas kontaan toujours nekka ak yéen fii ci plateau bi. Faldiaga, et coach et Mamandak, qui est toute belle comme d'habitude. Ah, ma mère, elle est et, et puis tous ces réalisateurs, tous ces techniciens de magie comme euh, Mam Sidi, Banora et justement Asta aussi, et toute l'équipe qui est derrière, que je ne vois pas mhm. mais qui assure euh, la qualité de cette émission mhm. Et ngi nos euh, sunu téléspectateurs yi nga xam ñu ngi ci Sénégal wala ñu au ci bitim réew di leen au di dalal ci

17 mai 2022, nous retournerons à, notre histoire, professeur Donfara. Dadiwartane 1988, la euh, levée de l'état d'urgence instauré dans la région de Dakar depuis le 29 février, euh, depuis le 29 février justement, Atoum dans la région Dakar au lendemain de l'élection présidentielle. L'élection avait été remportée par Abdou Diouf coach Yang candidat sortant et du Parti socialiste. Alors, Thibaut Diamono mu avons une am manifestations professeur ba ñu euh, état d'urgence euh, ci atum 1988 ci 17 mai bi la ñu dindi li nga ni état d'urgence waaw defoon nañ ko nag nañ ko ah, waaw ay mag lañu léegi ay kilifa lañu léegi mais loolu def nañ ko xam naa sax ay commissaire de police yoo xam ne temps boobu étudiant lañu woon ñoo nekkoon ak ñun ci tali bi président Macky Sall ci boppam sax daana wax ne de temps en temps nañu dem tàngal ci yoon bi président Macky Sall nag nee nañu amul fit de ndax mère gàtt ah, lañu ko xamee ak yi xeer non non non c'est un c'est un mmh. ñafe ñafekat la ñafekat la waaw bien sûr kon fit du doole kese de ah? non du loolu c'est-à-dire que xam nga moom dafa nekk koo xam ne dafay il prend son temps da ngay yaakaar ne dafa dafa ragal mais day jël temps quoi mais donc période boobu nekkoon na situation bu métti nga xam ne dañu daan tere bépp rassemblement mhm. tere tam à partir de euh, vingt une heures ci guddi ba six heures du matin kenn du génn mais tarewul woon ñun dañ daan génne c'est l'occasion aussi de saluer les militaires sénégalais les forces de sécurité parce que man maa ngi ku yoyu jamano mm. nga nek ndaw di génne di song ay char de combat di jël ay cocktail molotov yek te duñ la def dara. Mm-hmm. dafa melni donc en ce moment amna ay chef ay kilifa yo xamné ne. Mm-hmm. Eh, ay nit yu bax lañu ñi bëgg Sénégal la ñu bëgg wa Sénégal la loolu je pense que souvent il faut le rappeler. Mm-hmm. parce que buñu buñu bu appliquer defoon à la lettre le couvre-feu l'état d'urgence peut-être dina nous ñu bari ñu dé sama sama genre yi nañ ci parce que dañ daan violer euh, couvre-feu bi di génn ci biti donc loolu et le président Abdou aussi euh, bien sûr mais il s'en est très bien sorti finalement Au Sénégal dem ba 2000 ñu am euh, lu mel alternance politique pour la première fois au Sénégal par l'opposition arrive au pouvoir donc je pense que c'est des choses occasion la pour nous faire ko ne ay tant xeex la woon tant xare la mais amul won soxor diganté homme politique manam dañ dan nek ay adversaire mais ken soxorantul sa morom. c'est c'est très important manam jongante lañ ko def. moy jonganté jongante politique. kon nak euh, te jongante dañ naan fair play daf ci wara bax kon nak euh, lool la. il faut rappeler aussi ñun même en tant que ndaw dañ dan japp ay policiers mais dañ leen ar, bañ bañ leen toroxal bañ leen gagne, bañ leen def dara parce que dañ leen wax né duñu def ay bomb duñu ñu rey nit duñu attaquer nit. dañ naan dañ daan wane suñu mere mais je pense que loolu génération boobu tam eh, baax nañu ñu jaajëf leen ci loolu tam.

kiyam dóor gune koo xamante ni da ko waroon a encadré ñuy gën di nemmeeku nga gis koo xamante ni dafa war a dem defi marche euh, police bi bañ euh, préfet bi bañ a signé l'autorisation alors que justement am nañ ci droit xam nga Asma man j'ai l'impression que bu njëkk politique bi amoon conviction la da nga amoon conviction def politique pour servir sa sa nation servir sa dëkk servir sa réew mais léegi nag tu as l'impression que du ñuy def politique pour am am pour le côté matériel je crois que côté boobu il indi euphorie bi ci nit ñi nga gis sa sa adversaire politique nga def ko ennemi alors que pour pour antel il ne dem ci a def du revendiquer ce droit di jox sa morom le respect mutuel. Mhm. mais légui nak dañu jël yeneeni yeneeni façon duggal ko ci politique ba jël benen tournure bo xamné dañu melni ay non bëgg rayanté bëgg waxanté lu ñaaw bëgg kenn ku alors que le problème n'est pas là revendiquer c'est pour le pays justement en tout cas Mingok, ngoog ton Fall Ndiaga way tak yi mu mel ni euh, batay amna rôle. ndax wàllum agression yi ñuy gis xale yi tamit di gën di réer ndax ñàkkum liggéey moo leen ci dugal am sàggan wala tayal euh, moo leen ci dugal waaye gis nañ fi ñetti agresseur yoo xamante ni dañoo dabbi woon benn waay ba ci biir këram fu ñu mujjee ak yoon jërëjëf euh, Asma euh, am na image boo xam ni moo ngi wër démb ak tey euh, muy image bi nga xam ni wax nañu ni ñi doon agressé ki nga xam ni moom mooy moom mooy moom moo doon borom moto boobu. Mm-hmm. li ko waraloon nag dafa am ñaari ñaari espace amoon moom mooy dimanche ci bi mas bi jeexee ak bi làmb ji jeexee dafa am ay yoo xam ni dañoo yor seen i yat ak seen i jaas yi di kar tataay bi ñuy kar tataay nag dañuy jël. Euh, li nga xam ne mooy portable yi nga xam ne ñoo doon client yi wala sax euh, dawal ñenn ci dawalkatu moto yi ñu leen di kar euh, di leen xëbali ay jaasi ak i pompe bay nangu seeni moto di ko yóbbu loolu nag dañ koo préparer c'est-à-dire que dafa am yoo xam ne bu amee gis ngeen bu làmb bu làmb amee ni promoteur bi di préparé sécurité bi nga xam ne mooy am ci biir làmb ji ñoom agresseur tamit noonu la ñuy préparé nan la ñuy fexe ba am ci ba am ci dara moom la ñuy wax ni ñii gàmm ak ñii ras dem bokkuñu ñi doon ras dem nag am na image boo xam ni yaa ngi gis image bi nga xam ni si tata bi lañu lañu lañu lañu la ñu seq euh, euh, jëmale ci tata bi daw euh, dugg ci tata bi nangu seeni i portable nangu seen nangu seen i seen seen seen seen i bien image boo xam ni bu ne maam Sidi moom moom ko boo xam ni gën na frappé Sénégalais yi moom mooy ki nga xam ni Eh, dañ doon dañ doon sàcc motoom mu daw sax ba dugg ci biir kër gi ñu fekk ko ci li nga xam ne moom mooy ci biir ci biir ci biir kër gi eh, eh, pompe ko xëbal ko ak ak jaas yi mujj mu bàyyi leen ak moto bi dem booy boobu ma di ko félicité lim man def na ko parce que mm. amul arme waaye bu doon xëccoo rek wala wala wala wala ay loxoy képp rek kenn du yóbbu motoom. parce que pompe nañ ko mais teewul moo ngi wax ni motoom du dem. beneen bi moom mooy ci jaas yi ci la mujj bàyyi parce que tamit euh, moto bi moom moo ko mën a am. tey sauvé na mais moto bi euh, dem na. mais ci liggéeyu ci liggéeyu ci liggéeyu mooy image bi ma la ma lay wax nii bi nga xam ne daw na booy bi daw na noonu dugg ci moto bi waa ji nga xam ne moom moo ko dàq ànd ak moom euh, ba ci biir kër gi. gis nga agresseurs yi nañu def nànk nañu def nànk asma gis nga tey amul benn koñ. boo xam ni ñaar fukki kër dinañ fa nekk te fukki kër yi amuñu caméra de surveillance. nan lañ parce que am na ñoo xam ne dañoo defee ni bu ñu xoolee caméra de surveillance mooy bi ñuy def fii ci bunt bi def fee ci bunt bi mais daf tey temps yi dafa am ay yeneen caméra de surveillance yoo xam ni bokkul ak yi fi nekkoon. ay lamp lañ ay lamp lay doon mën na doon lamp borom buntu kër gi mën na doon lamp véranda bi mën na doon làmp sax biir néeg bi léegi nag yooyu nag agresseurs yi dañoo war a def nànk parce que tey bu ñu xamee ni li ñuy def nii mooy dañuy làqatu parce que masque la sol ñaareel bi mooy da bu jëlee moto bi day daw kon kii def loolu dafay da ngay làqatu mais am na lu ko feeñal mooy caméra surveillance su euh, kër gi mais ci image yi nga xam ne nag euh, am nañ ko dañuy féliciter waa police euh, féliciter gendarmerie nationale <coughs> ministre de l'intérieur parce que defoon na ci semaine bee passé réunion bu am solo ci wàllu sécurité au niveau national mm-hmm. bi nga xamee nag Sénégal yi ñoo ngi jooy image bii nga xam ne ñëpp partagé woon nañ ko démb euh, euh, am na beneen image boo xam ni ñoo ngi koy partagé ba bi may dugg nii course moo xam ne maa ngi woo euh, ay gendarme pour ñu jox ñu ay information parce que image bi dafa génn ñu wan ñu ni gendarme yi jàpp na ñi nga xam ni mooy ki yoroon jaasi gi ak ki doon ki doon ki yoroon moto bi mhm. mais ba tey ji nii may wax ak yow man bokk parce que am na ñeneen xëy na am na kenn du wax ni kenn xamu ko mais man bokk ba tey xamaguma ban gendarmerie moo ko jàpp moo mais nak bind nañu bataxal buma chargé de communication de la police da da di jotali mhm. euh jotna sax ci lii nii tonton Diaga nga xamni mhm. ni dafa important ndax man en mhm. tant que mère de famille daf may xaw titel touti yay boy euh, bama wo le sous-préfet de Dakar mu di Djibi Diallo ñu gën ko ragné ci touru Jack euh mu bolé won ma ak le directeur général de la police ngir ñu càmbar walum googule euh, je pense que euh, ñom ñoo def li ñi mën waaye ci bi di identifier bu donc quelque part la population devrait se ranger du côté de waaye e bon euh, bataxal baa ngi nii dama la koy rek bu ko mhm. alors ministère de l'intérieur moo mhm. communiqué de presse euh, ci soirée 15 mai 2022 une vidéo circule sur les réseaux sociaux à travers laquelle on aperçoit une bande d'agresseurs armés de coupe-coupe euh, poursuivre un individu à bord d'une moto euh, jusque dans une maison pour s'emparer de son bien après l'avoir aspergé d'un gaz asphyxiant. À la suite de cet événement, qui sans nul doute peut générer un sentiment d'insécurité chez les populations, la police nationale informe que dans les instants qui ont suivi ces faits, les patrouilles qui étaient en cours dans le secteur et l'exploitation des renseignements ont permis l'interpellation de l'un des malfaiteurs. Ce dernier, formellement identifié par la victime, a reconnu les faits qui lui sont

yi tuuti Adja Ndak mhm. parce que dañoo wax ni waa police ko jàpp te image yi ñu jox mhm. euh, ja ay ay gendarme la ñu ba siège yi ba siège yi nga xam ni sax ñoo fi ñoo ñoo fi nekk ay mhm. gendarme lañu ndax même personne yi doon agressé la ñu jàpp parce que fan yi da ngay jëkk ba saa gi dégg gis nga li xewoon euh, cité des imbéciles ñu ni euh, nu ñu koy waxatee ti kaagul yi Mhm. jàpp nañ euh, feeñ na fa ba ñu fekk image boo xam ne la am na deux ans ou trois ans lañu la ñu wane moo tax image yu mel nii ñun dañ ciy xaw a dañ ciy xaw a tey tuuti dañ ciy xaw a tey tuuti li ñuy bëgg mooy comme ni ñuy def avant ñuy dugg mhm. woo gendarmerie pour ñu jox ñu information yoo xam ni bu ñu toogee ci télé dinañ wax ni kat parce que euh, euh, réew mi dañoo wax dañoo tàmm ndax télé nga ko dégg waaw baa rajo nga ko dégg kon yow mi toog télé ba rajo boo leen mhm. joxee information joxeel information yu yu yu wóor yu am solo mais li ñu ciy xamal mooy agression yi bari na mën nañ leen a wan ay vidéo yu bari yoo xam ni ci wàllu insécurité lay am gis nga réew mi fii kenn ku nekk taxawoo doon sa gendarme bopp doon sa police bopp sa insécurité day des saa su nekk mhm. parce que ñi ñi nga xam ne dañuy tëgg euh, làmb ji la ñu man def nañ ko mooy fexe nañu ba nga xam ne képp ku dagg biee nekk ci biir làmb ji dinañu amal sa sécurité wala nga nekk ci buntu làmb ji dinañu am sa sa sa sécurité parfois ñu naan làmb ji amul sécurité mais làmb ji am na làmb ji am na am na am na am na am na am na sécurité mhm. mais problème moom mooy bu làmb ji tasee ba nit ñi di ñibbi nga xam ne policiers yi nekkuñu fa mhm. gendarme yi nekkuñu fa kenn ku nekk nag su boobaa nag su boobaa la samba boy yi di def lu leen neex mais gis nga euh, euh, temps yi defe naa ni daaw la. Mhm. dañ see jàppoon benn benn benn agresseur bu mag a mag a mag bu buy tuy buy buy buy wuyoo si turu Akon. nga xam ni nga xam ni merci beaucoup. <laughs> Euh, turu bi dafa seetlu lool wax dëgg mhm. yàlla sax ba mu tuddee boppam moom. Mhm. ay ay ay Akon. gis nga danaan nekk ci côté technopole bi ci ñax yi la daan daan bu amee yenn embouteillage wala mu gis ni am na loo xam ne war naa mën a génn ci ñax yi lay génnee. yor pompam ba gazam daw agressé ki nga xam ne mooy borom moto yi am na sax am na journaliste boo xam ne jëloon na ay bagaasam parce que commissaire bi moo ngi koy wax jëloon na ay bagaasam euh, ay caméra ba yóbbu ko Guinée bi ñu xaymaa li mu sàcc lépp lépp ça fait dizaine de millions la la sàcc bi ñu koy jàpp six cent six cent mille et quelque la ñu fekk la fekk ci moom ak i ak ak i nit bu demee ba demee ba ñuy xayma ni ak agression bi yow bi ngay def am nga ci fukki million ak nàngam kooku pour mu bàyyi ko euh, problème lay lay problème lay bon lay doon mais beneen bi gis nga agression yi li ko gën a gën a gën a gën gën a yokk moom mooy da ngay gis tey ki la agressé gor sa loxo wala mu agressé yóbbu sa bagage après lan moitié ci euh, grâce qui grâce présidentielle. grâce présidentielle day day day am. qui la ci biti. deux jours après ko c'est-à-dire que mu euh, euh, police day gendarmerie di mais parfois tamit vraiment vraiment suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy président bi euh, ci ni muy gracier daf ko war a xoolaat. Mhm. parce que tamit insécurité bi au lieu que nga xeex ko mais day mel ni li nga digal euh, ministre de l' intérieur defoo ko fi may tëjee fi may tëjee mooy gis nga parfois nit ñi dañuy dimbali police ak may surtout autorité yi surtout tribunal. Mhm. dama koy wax par parfois da ngay gis ñu liggéey liggéey bu am solo deux jours ñu topp benn bande yi ba jàpp ko. Mhm. ko. def seen liñ ci war a def lépp jébbal ko euh, mm. euh, procureur mais après lan la ci def deux jours après ñu génn ko mu demaa mu dellu ci police ba wala mu dellu ci gendarmerie pour wanni leen ni seen jàpp bi ngeen jàpp jëruñu dara naan leen sama kudd laa fi fàtte bi ñu ma andilee añ wala sama mont laa fi fàtte. dañ leen di ñaawal di leen kokkali waaw wan leen yi ngeen def yëpp yëpp yëpp yëpp amul dara man mos naa fekk benn raafal ma ànd ak waa police. Mhm. bi ñu fekkee raafal ma ànd ak ma ànd ak waa police lan moo ci xew. Mm. Euh, course Mhm. bi ñu jàppee benn agresseur. malfaiteur uh-huh. bi ñu ko jàppee bay wax moom xam nga lu nga xam ne dañoo jàngut c'est-à-dire que dañoo yàgg ci kaso yi ba xam ba xam ba xam droit dañoo yàgg ci kaso yi ba xam droit. Mhm. li mu njëkk def mooy dafa jël boppam dóor ko ci oto bi. Mhm. daal ni gars yi dañ ko doon dóor. mu yeggee danaan gaa yi dañ ko doon dóor. Mhm. jour boobu wax dëgg yàlla ña fa nekkoon ak même ñi ñu jàpp ci boppam sax dañoo taxaw ni ñoom ñooy doon seede ni defuñu ko defuñu ko defuñu ko defuñu ko dara. Mhm. nga xool ni kon c'est-à-dire dañuy dem ba xam droit xam fi ñu ban ban ban ban porte la ñuy génne. mais mu doon loo xam ne rek euh, euh, agression bi bari na. surtout image yi nga xam ne fan yi gis nañ ko te xamee wuñ ko woon te kuñ ci jàpp nag ñu naan ñag yi la yoonu ñag yi. ñàkk ay jeex na fi tàkk mhm. ay sénégalais lañu. yoo xam ne bu ñu leen jàppee dañuy bett seen waa kër kii yi nga xam ne dañu ne dañ koo jàpp dañoo wax ni tëyër tëyër la tool rek. dañuy teyeur la. Mm. léegi kon kon moom bu ko jappé tay ji ni ci walu agression bett na ay client mais bett na famem bari na ko ñuy japp ci affaire agression wallahi sa yaay day yendo joy parce que mosuloo koo foogee. très bien Youssouf euh, Damba Dramé euh, li nga wax mom lañ fi wax moy image waa ji ànd ak waa gendarmerie mom la ñuy wax né ministère de l'intérieur bu bindé bataxal daal di wax né ni police japp kon police japp ndax image bob dañuy alerter sur la toile ni buñu tilimal image nit itam budé du ñom ñu bañ wax ni ñom la ndax way takk der bi ñu ni ñom ñoo leen police lañu wax du gendarmerie te ñi ngeen gis ci image bi ay gendarme lañu motax ñom dinañ ñëw fi inshallah gëna léral parce que je pense que police ngi jël ay mesures am gendarmerie waxi nopi rond point bo dem légui da ngay gis raaf té waxoon naa ko fi maman néna dañu wara délu ci système mu la patrouille euh, policière wala patrouille de la gendarmerie bouignon gis ngeen ni légui à partir de 19h te timis bi waaj jot wala circulation bi buy bëri muy digg njooloor bi wala euh, jublu timis bi da ngeen di gis ni ñom dañuy rafler avant ay seen ay jamono yakarna ni ba 23h mo indi on terme heure de crime 23h minuit da nga fa daan am patrouille bo amul carte d'identité wala sa carte d'identité majeuruloo amoo droit guen dañ lay té donc loolu yépp nek ay phénomène yo xamanteni il faut que police ci wat foofu ñom wa police ak waaye takk der yi nee nañu mënuñ cee yegg ñoom yi neen ndax askan wi daf leen mu cee war a gunge waaye léegi bu dee askan wi comme ni ko tonton Ndiaga waxee kii tailleur la woon ci askan wi la bokk. Mhm. ndax réew mi metti ba mu ne damay dem agressé ba yegg si foofu wala nu mu fay demee maman. xam nga agression bi egg na foo xam ne c'est c'est c'est inquiétante mm-hmm. il faut que nit ñi jóg ci xam nga ñaga dafa wax bu am solo de kenn ku nekk nga nekk sa police ak sa gendarme mais nga nga jàppe sa sa morom ni sa bopp parce que day tax affaire bi yomb mais boo jàkkaarloo nit ñu koy agressé nga ni moom la du man mais bu ëllëgee dinañ laaj sax tegam ko la jàppale mm-hmm. il faut que ñu def esprit centre aide boobu mm-hmm. taxawante ci suñu biir quartier organiser wu parce que police mënul nekk fu ne Mm-hmm. police mënul nekk fu ne il faut que les quartiers s'organisent ñi ci biir quartier bi def seen comité de veille am ay ñu ñuy jël ñu leen di toppatoo kenn ku nekk boo gisee ku dugg sa kër morom te xamuloo ko nga interpellé ko. Mm-hmm. mais léegi nag àdduna bi yàqu na boo gisee kuy dugg sa kër morom di ko dóor wala nga dégg ko yuuxu doo wàllu. léegi wàllu amatul bopp sa bopp la. professeur Danfakha mu mel ni lii itam dafay baax ñu chambarat askan wi daal di leen wax euh, xalé yi nga xamante dañ leen di yobbu demb rek ma ngi gis ben vidéo bu circulé bo xamné ne yaay ji mi ngi genn loxoom di joy naan yobbu nañ keuf nañ domam yobbu ko tonton Ndiaga lool yëpp bokku ci forme d'insécurité mm-hmm. est-ce que dañ koy yobbu pour laan à quelle fin ku ka sàcc dafa te jigeen na ko yóbbu wa ah. waa na ben mère maire Wa mère ko mère ko jël yobbu ko ah. hmm? Wa démb mm-hmm est-ce que kooku dafa ñak doom bëgg lu ko wéetali mu ne xaar ma dem sacc doom jambour wala c'est à des fins de sacrifice euh, ou d'enrichissement euh, ken xamul quelque part il faut que nous sensibiliser dans l'éducation professeur nos enfants à ne pas ouvrir la porte aux inconnus mm-hmm. nit mën nga ko wax ak mom nga des si biir kër gi euh, mom mu wax ba identifier la bu ne sax sa yaaya ma yebal ne ko woo ko nga def au parleur ma dégg ni sama la quelque part il faut arriver à ça mm-hmm. dans la sensibilisation et surtout li ngeen wax yépp moi, toujours askan bi dafa war jappalé jàppale nguur gi parce que je pense que Sénégal mën nañu wax lu bari mais état mu ngi def ay jéego yu rafet ci anam sécurité parce que ça yu ñu tumal ben affaire mu am ñaawtef bu ñu def da ngay tok quelques jours rek police wala gendarmerie japp ñi nga xamni ñom ñoom ñoo def ñaawtef yoyu donc ça veut dire que police bi elle est professionnelle elle est compétente lolu amul ben problème mais benen problème bi moy population bi quand même au ñu nekk ci quartier yi ci gox yi di fi di wax euh, di di ñaawul lool ay agression yu mel non nañu quartier mu ngi intervenir en tant que grand frère en tant que mag en tant que tonton nga veiller sur les autres comme comme tu aurais voulu que ñaw ñenen tam ñu ci say wala quartier ku nekk banque sa loxo tej sa buntu ñu xam ne ñun ñëpp a dëkk agresseur lu mu leen jaral na ko jaral tam ñi nga xam ne ñoom ñoo moom borom alal yi ak boromu njaboot yi nañu organiser wu jàppale eh, eh, état ci affaire kaaraange bu ñu ko defee noonu rek yëf yi dina pare leneen affaire bi ma bëgg yokk du ñàkk moo tax nit di agressé parce que su fekkoon loolu la am na ñoo xam ne dañu am ay millions wala ay milliards ñu continuer di agressé donc dafa mel ni mbon la dañoo choisir nekk ay nit yu bon donc société bi moo waroon ni ñun suñu détermination bëgguñu dekk ak ñu mel noonu. très bien donc même su fekkee param nit ki dañ ko baye ñu yóbbu ko tribunal ñu baye ko mu ñew dekk fenn population yi bu ñu commencé définir kii bëgguñu dekk ak mom mais état dina trouver solution mom ci bopom dina xamné yow bu no dem kasso ñëwaat dekk fi nga dëkk di continuer di di di di di agressé ay nit. donc ça veut dire que population yi ñoo war a sóobu seen lox ci kaaraange bi. mu mel ni loolu lu tax mu jugee fii moo di bopp sa bopp bi nit ñi di dund ci Moussa. Mhm. kenn ku ci nekk sa buntu kër doo xamante sax ak euh, sa voisin te euh, bu njëkkaan dëkkandoo yëpp dañuy xamante dëkkandoo bu nekk am na droit yer sax sa doom ci Moussa tey jii. Mhm. même en tant que collègue amna naa droit amoon naa droit. Mhm. gis doomam ci naka su dul noonu ma yer ko ba pare woo papam daal di. ko yeggee waaye léegi boo ko defee ñu ñàkk la kersa est-ce que du lool moo tax nit ñi toog police les police la partagées. mais loolu ah. maman Ndak que ko sank Fall avons ko procès il a confirmé talatu ku ne que ku ne mhm. indi li sa ko mais les responsabilités actuellement sont partagées parce que grâce war nañ xol nan lay aussi hein nit mënuñ ko ñu grâce def taf taf ñu gis ko mu ci koñ prison aussi tamit dañ dafa il est temps que aussi New York prison yi nga xamne le japp buñu jàpp duñ na mais agresseur pour xamne koy jël diko mu génn té ki nga xamne téléphone wala wala bu ndaw la def mu ngi ci depuis dix ans wala 20 ans c'est pas normal les ma parce que nit il faut que ñuy da ngay nekk ci koñ bu sax ñu da nga soxor wala da gendarme wala affaire autoritaire la nga génn taxaw association contre les malfaiteurs ba képp dëggu si ko wala ku deful nak su dul noonu ñu japp ko wala koñ bi bu ñu xamee ne koñ bi ay teug tëglaay fa nek comme ñom ay nit yu sadi comme ñoom ñoo xam ne dañoo bëgg lijjanti koñ bi tekku ci yoon non duñ fa dugg déedéet dañuy seen feneen fuñ dem kon tonton Ndiaga amna ño xamné dañuy wax né ne dañu wara arrêter scooter ndax mo nek moyen bo xamanteni ci la ëpp luñuy agresser ñen ñi mel mam maam si di naan kon moyen de transport la euh, agression waru tax ñu arrêter ko waaye police est-ce que jotul moy bañ euh, ñaari nit di supportenté ci kaw scooter gis nga euh, euh, scooter moom. kenn mënu ko fee tere ko fee jëlee. ah dëgg yàlla parce que li muy def euh, ci réew mi surtout réew mel ni Ndakaaru embouteillage bi fi nekk am na ñoo xam ne dañoo am oto mais dañoo am scooter. Mhm. parce que moom am na moment boo xam dañuy gaari seen oto bu ñu amee fu ñuy dem fu yàkkamti dañu jël seen scooter dem ñaareel bi mooy réew mi dox na ci ay jamono ba kenn dematul dem Sandaga di jënd wala dem cag-cag moo lay mm. surtout yow mi euh, lu bari cag-cag moo la koy <laughs> moo koy doxal moo la koy doxal yàlla sama rakk ju baax voilà kon am na ñoo xam ne dañ koo def pour liggéey am ñoo xam ni euh, euh, dawal scooter mënuñu ko feetare xam nga lu ñu fay tare mooy nan la ñuy def ba kenn du leen sàcc kenn du leen agressé ñu aar leen li nga wax pour deux personnes dafa am d'accord naa ci mais dafa am moment wala heure bañ ñaari nit yu daw à partir de 22 h heures wala vingt trois heures heures du matin su boobaa mën ngaa wax ni ñaar ñooñu kat bu mais problème moom mooy gis nga Sénégal ni am tuuti fit mm-hmm. fit ñaari nit yor di leen ñuy dàqi mbooloo jaaduwul. Mhm. dafa am loo xam ne boo dëggalee sa bopp ñoom yow yaay mujj dàq leen. Mhm. am nañu image boo xam ne maa ngi maam Sidi ñoo ngi koy seetaan démb euh, benn waay bu ànd ak euh, bu bu ànd supporter kenn waa ki rek ci ginnaaw euh, wàcc daw di nangu saagu gel bi oto yi doon daw yëpp dañoo mujj freiné taxaw. di ko seetaan di ko seetaan ñenn ñi dañu mujj daw di wàññeeku. te deux personnes képp la c'est-à-dire ragal tapet tapet c'est-à-dire que bu ñu volontaire woon taxaw taxaw dëggal seen bopp mën na am saagu ndaw si euh, saagu ndaw si. moo fa nekkoon de mbëkk lañ. saagu ndaw. Ah, am na koo xam ne ci boo xam dañ ko dañ ko dàq benn waay moo jigi ci beneen. visite bi la visite bi la nangu moto bi nangu moto bi. téye ko jërëjëf te pourtant visite boobu kenn képp la. kenn xanaa xamoon ne def la rek. xamoon ne def kat du am fit. amuñu fit. waa ji woo xoolal image bi. image bi li waa ji yor jaasi jaasi jaasi jaasi yor pompe pompe pompe xale bi yorul dara fitam dafa manqué boo xoolee xale bu xëccee day daw génn dóor dóoraat dóor dóoraat ba jël moto li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy waa moom mooy euh, waa ji gis nga na nit ñi tuuti tamit am fit mm-hmm. na nit ñi am fit am na yoo xam ni mbooloo moo man kenn mm-hmm. Mm-hmm. mbooloo moo man kenn ñaareel bi gis naa ci yenn quartier yi vraiment ñoo ngi góorgóorlu di yor seen sécurité bopp mooy bu guddee jeunes yi nekk foofu dañuy fexe ba guddi gi ñuy rond bu weer wi deewee kër gu nekk am loo participer. jox ko jox ko jeunes yi. gis naa ko ci ay quartiers yu bëree bëree oh. bëree bëri. mais agression bi daal li wax gis nga jamono jii ñi gën jooy wàllu agression. très bien. buntu Pikine la. Dalifor nag moom. Hmm. maar day taal la fa xew. non Dalifor. Dalifor hmm. moom la xew ci wàllu agression. man damay wax damay joxe euh, rond point Cambérène merci beaucoup. Hmm. damay joxe conseil gis nga gis nga am na heure yoo xam ne. heure yoo xam ne fële nu mu tënatee euh, Dalifort. Mhm. bu fa kenn dem. agression ba fa nekk amul amul amul fenn fépp am waaye rawatina fi nga xam ne moom mooy moom moo jege ay Grand Yoff yooyu wala. Dalifort voilà moo mooy mooy. rond point rond point kii bi ah, ah, ci ginnaaw. Mhm. technopole technopole bi voilà très bien jëm côté maris bi. waaw euh, dafa lëndëm voilà très bien. dafa lëndëm moo tax voilà côté boobu dafa nekk ci agression am na heure yoo xam ne. ak asma maa ngi wax am na heure yoo xam ne buñ fa def vraiment mu doon loo xam ne lu doy waar la. Mhm. Euh, suñu sëriñ suñu soppee sëriñ Asek borom ndigal moo ngi ñuy seetaan. Mhm. Euh, di ko ziar bu baax a baax di ziar Djibril Djibril. Djibril Diallo Djibril Diallo. Eh, voilà voilà moom itam il faut que mu dalal ko fii moom itam. c'est normal. ba ki démb fan yee liggéey na liggéey bu am solo ci ñi doon doon fanaan ci euh, corniche ba euh, ah. vraiment mu liggéey fa liggéey bu bu am solo euh, ñaareel bi gis nga ministre de l'intérieur ñoo ngi koy félicité ci côté sécurité mm. ci côté sécurité parce que bi mu fi ñëwee léegi am na jéego yu mu def yoo xam ni vraiment def na ko ci wàllu ci wàllu sécurité. Euh, bu am solo maanaam du doy du doy. ayca ayca merci beaucoup booy filmé nga mën a song sax. ayca en tout cas booy filmé nga mën a ah. sifflet mbiib. waaw sifflet mbiib. depuis mbiib rek. man pompe laa yor et je pense que aussi quelque part am na euh, peut-être on ne va pas en arriver là mais autorisation de port d'arme moo tax il faut que waaye takk dee ñëw fii problème lay doon ñaareel bi boo ko amee. arme bi ñu lay jox. teel teel dana bari. voilà pour nga am ko problème la. ayca ñaareel bi arme bi ñu lay jox. Mhm. bal bi presque du rey day gaañ est-ce que te bala ngaa dóor dañ leen la nga dóor ñaar yoon ci kaw bala ngaa dañ la fay rey en tout cas mi Fatou Diallo madame Bamba minuit 7 ans seetaan suñu yadi ji koy ziar bu baax baax grande sœur la ñoo koy ziar ñoom et ñoo ngi si bile waxtaan lu dul ci nag li xajul ci li Sénégal daf ñu ñor lool lool ba nga xam il faut que tonton Diagagne ma ànd ak yow. Mhm. daal di leen dalal fii. lu ah, rek euh, askan wi gën ham. alors professeur Danfakha mom leni dalal ci développement personnel tetamit tamit mu indi ci waxtaan gu am solo prof nga ne lycée oui en danger à Dakar à qui la faute un vrai cas de fuite des responsabilités. waaw xam nga loolu actualité dëgg la. waaw waaw <laughs> yow kay da ngaa dugg si cappaatooli actualité. voilà c'est-à-dire que fan yii yëpp ñu ngi koy waxtaanee. Mhm. ñu coow li sax la indi. Euh, lii am mooy euh, wàllu ak yeewi askan wi dañoo déggoo ne dañuy ànd ci département yi. mu am département yoo xam ne Yewwi moo war a présenter listam moo am département yoo xam ne wàllu moo war a présenter listam ba yaakaar dugg ci waa opposition ñu yaakaar ne war nañu mën a gagner eh, parti au pouvoir mais dañuy jëkk-jëkk rek toog di dégg ne listu Dakar nga xam ne bu jaaroon bu mhm. jaaree parce que pour le moment waxaguñu dara mais bu jaaree dina permettre peut-être que opposition mu am fukki député nee nañu eh, liste boobu moo am problème <laughs> alors suñu suñ koy xoolee nag ñu war a xam kan mooy eh, kan mooy responsable maanaam kan moo tax yooyu jafe-jafe am mhm. dégg nañu yu bari yi xam ne ki nga xam ne moom mooy mandataire bi Déthié Fall di di tuumal keneen ki mel ni Saliou Sarr mhm. man nag am naa chance parce que nous, yëpp xam parce que nous daan liggéey presque 2019 2021, ba 2021 mille vingt réunions. Mhm. réunion yu ba ci réunion yu mujjee élection autour du ministre de l'Intérieur, intérieur ak ministère ak direction générale des élections mhm. pour moi, ñaari euh, nit ñooy responsable. ñan la. mooy sommes ak kan. ak ñi nga xam ñoo parce que xam nga ingénieur la. Mhm. ingénieur polytechnicien la macha xam-xam Mhm. waaye xamul élection. ah xamul élection mosul organiser élection mosul nekk mandataire. donc loolu koo xam ne amul expérience élection nga jël responsabilité bu mel ni lii nga jox ko loolu erreur la. ñaareel bi mooy bi ñu commencé di préparer élection yi ak ministère de l'Intérieur intérieur dem direction générale des élections fekkewul benn réunion. d' accord donc xamul exactement yéen gàllankoor la waroon éviter donc loolu nekk na loo xam erreur la donc ci bopom mom responsable et puis si la responsable, responsabilité mom sax wax ne man euh, dama joxone sama cachet ak déjà est-ce que l'ol Je la ci dara mais limu que je moy bo si mandataire Amo benn droit di jël sa cachet jox ko kenen mhm. wala sax bo dit ki mu def mu jël nga coach bala ma jël dossier bi di ko euh, dossier ministère de l'intérieur damay vérifier est-ce que li ma laaj Moussa est-ce que def na ko wala def mais professeur ma foog ni comme coalition la dañ ko waroon a boole ak ay techniciens yu seen xam-xam match itam ci wàllum organisation élection. mu am surveillance ak euh, compte rendu bu war a am ci transparence ak xam nga coalition bi dafay def lettre. bind ne ñun coalition yéwi, dañuy nommer dañuy désigner dafa mel ni da nomination la. Mhm. ñu nommer diw mooy nekk sunu mandataire. moom rek moom la administration reconnaître reconnaître keneen donc ça veut dire que responsabilité bi yëpp mu ngi ci ci ci ci kawam moom moom mooy responsable warlu woon wax ne dama amoon benn confiance ci nit ma def lii loolu sax wax boobu wax bu garaaw donc première chose responsabilité moom la deuxième chose mais ñi nga xam ne dañ ko jël parce que amoon na foofu ku mel ni Saliou Sarr boobu ñu wax moo ko gën a maîtriser affaire élection depuis 1996 mu ngi ci élection am na keneen koo xam ne Aljuma Sow la mu ngi ci Pastef ñoom ñëpp mënoon nañu nekk ay mandataires. mais pourquoi tabbu ñu leen. ay problème politique la ku nekk bëgg a ñu wane wane sa bopp. te loolu nekkul loo xam ne lii liggéey sérieux la. da ngay jël ay loo xam ne avenir adduna et Sénégal yëpp mu ngi ci dépendre ngay jël koo xam ne simplement parce que chef de parti la parce que moom moo war a war a fës nga jël koo xam ne alors que da nga waroon jël koo xam ne kenn xamu ko sax. mais dafa mën a def liggéey bi donc loolu responsabilité boobu il faut que ñu wax ko alors donc lu tax nag muy am fuite de responsabilité lu tax nit yi Sénégal muy sénégalais dafa mën a reste da euh, res. daw res daw mhm. ñu na ñu na ñu na. c'est-à-dire que saa ñu def saa ñu la jox benn responsabilité bu bu méttee rek nga ne ko diwlu président de la république bu affaire yi méttee mu ne noo mandat yi ñoo doyul. wala sax euh, gars yi euh, de fonds yi ñoo ñu ñu des kese xaalis moo des wala ñu wax ne opposition moo tax affaire bi di dox wala sax ñu ne sax dañu dem ba tuumal yàlla ne way taw bi la wala njéeréer yi la wala détérioration des termes de l'échange yow ñu teg la fii jox la moyen pour nga def liggéey bi nga war a def liggéey bi amul il faut avoir la reconnaissance l'honnêteté nga wax nit yi ne man lii mënuma ko wala ngeen teg keneen wala man lii mooy sama responsabilité jëm naa mais def ma ko donc man je reconnais mes responsabilités mais lu tax nit yi duñu def loolu parce que dañoo égoïste sen rek mais professeur loolu tamit yeewi askan wi nekk coalition bo xamanteni bi mu juddoo askan wi am ci loolu que je salue au passage ngir mu mën a dugg ci waxtaan gi euh, mu nekk coalition boo xam ne bi mu rek ñëpp ci d'accord ñëpp ci kontaan ndax dañoo ne woon booloo la ci opposition ngir daan ki ñi fi bëgg jëli euh, jëlee kon nak quelque part ñoom intérêt crypto personnel bu ñuy joxoñ baarabu tuuba mhm. nguur gi waruñu koo nemmeeku ci seen biir mhm. maa ngi am benn capture d'écran boo xamante ni dafay firnde ni ni am na nit bu wax xalaatam ci seen groupe WhatsApp Ousmane Sonko génnee ko kon nag nga ñoo confirmé waat nii qui dit Déthié mon moom bu n'est ni un match qui ci une organisation élection dañu waroon un ñeneen ñu gën compétent mm. kon intérêt crypto personnel est-ce que quelque part on devrait pas arrêter stop politique quelque euh, euh, un moment et nous suñu ay ou wala ñu fi pour des comportements d'hommes et d'opposition que soit de l'opposition ou euh, du régime au pouvoir un comportement politique li ma ragal mooy mooy instant bi danger bi leen daal su fekkee un seen

ou les 13 ou les 15 premières personnes ku elle damay jël exemple c'est de façon arbitraire comme mhm. elle le docteur Cheikh Tidiane mhm. Mhm. mais mais c'est quelqu'un d'extrêmement brillant mais et puis sérieux intègre nous ne da bëgg assemblée bu baax député ni Moustapha député donc ça pose problème donc loolu moy égoïsme au lieu et puis souvent sa souvent nak dañuy défar logique bo xamné day téré képp ko xamné ne ak ñom ñu génn la daal bo leen ne rek du ñu né yow ci avec le pouvoir. mais mais loolu la ñuy pouvoir parce que bo leen fàttaliku. loolu mo daloon Bougane Gueye Dany. voilà justement Dali mu poser problème au lieu gars yi ko bo pare waxtaan ak mom même bu gédé ñu dem ci mom waxtaan ak mom indi ko ñu né eh, dafa and ak pouvoir voilà cest que c'est devenu le logiciel le moins mhm. pour que nous ku d'accord éliminer te loolu nekk na loo xam ne égoïsme la baaxul. xalaat sa bopp waaw ba pare man professeur benn affaire jaaxal na ma xam nga dañuy jël toujours leader de parti ñu teg la mais dañu war a jël ay patriotes yoo xam ne servir nañ seen dëkk def na dara ci réew mi. Mhm. te xale yi naan foo toj. xam nga ku mel ni Cheikh Tidiane Dièye nekk un hymne professeur mais c'est vrai. di di contribuer ci développement économique dëkkam dañ ko war a teg ci kanam euh, ku mel ni euh, euh, Bougane mais c'est un c'est boo xam ne mu ngi œuvrer bu fekkoon amoon nañ fukki nit yu mel noonu ci réew mi Sénégal dina développer. parce que ñi ngi def dara ci seen dëkk ñi nga xam ne am nañ moyen bu ñu def mais koo xamante ne mi ngi xalaat boppam lu mu am ba def ci poosam soxla njabootam xoolal ama rëy ma loor Binta Ba Binta Ba mu mel ni lii nii euh, xeeñoon na askan wi waaye nag gisuñu ko woon mu arrivé léegi nag man dama samp laaj mooy que bu ñuy teree nguur Macky Sall gi fi nekk ñu naan moom day doxal dictature loolu lañ ko fi tuumaal kat te dañu koy wax kem ni ko askan wi waxee woon léegi est-ce que dal na xel ñuy gis opposition goo xamante ni ba tey ñoom falooguñu amaguñu pouvoir bi régime bi nekk au pouvoir muy régime Macky Sall am te ñoo ngi commencé di warante ci seen biir ñoo ngi commencé di diital intérêt ñoo ngi commencé di diital dictature ci seen biir est-ce que ñoom mën nañ am yaakaar ci ñoom asma bu ko gisee ñun ñëpp dañuy tiit parce que espoir bi nag dafa rëyoon ci yeewi askan bi je pense que la preuve gis nañ ko sur le terrain si élection locale yi nga xamante ne moom la ñu génn tey jii li ñuy gis ñii di génn ñii di kaas souvent dafay indi ay problème te day gën a décourager les sénégalais te hmm. ñoom duñu war a xam ni benn nit lañu am en face boo xamante ne ils ont affaire ak moom te du leen may dara président Macky Sall ni ñuy def nag dañ koy gën a baliser le terrain duñ doon wax benn liste lañu ñu waroon def sax ñoom opposition bi hmm. pour maximiser c'est une chance à la limite mënuñu ko def tas euh, au profit de kan Macky lay lay lay lay lay bonifié euh, encore une fois le de se moo fi nekk koo xamante ne war nañoo janoo ak moom encore une fois mooy le président Macky Sall. en tout cas mi ngi noonu xeex ci seen biir bi dañuy bàyyi professeur. waaw loolu déjà donc égoïsme maanaam bañ a fàttali bañ a toujours teg sa bopp. ci kanam. Mhm. da ngay xalaat ne da nga am mbooloo sa ginnaaw donc saa yu problème amee il faut que nga fexe ba xalaat ñooñu. Mhm. ñaareel bi souvent mooy ñàkk a xam xam nga ñu bari dañuy déggul euh, Déthié Fall di wax ne kii def ma wor maanaam dama ko def confiance ma def ko mu wax ko mais la responsabilité mooy lan man suñ ma joxee cër.

mais yow comme sa responsabilité moom moo eh, jiite donc ça veut dire que dara du fi romb tant xoolu ma man est-ce lii baax na wala baaxul soo ko deful yow yaay fut beneen bi mooy ñàkk fit cest boo defee erreur da ngay am fit wax nit yi man def naa erreur mm-hmm. lu mu métti métti su fekkee su laaj sax nga démissionné nga démissionné. ñàkk dëggu la kat professeur ñi dëgguwuñu. c' est exactement l' un des aspects maanaam lu tax ne nit yi dañu eh, dañu duñu nangu. Eh, jël seen responsable maanaam dañuy daw res. lu tax benn bi mooy eh, ñun suñu bopp bugguñu jàng cest à que su saa yoo waxee ni sa erreur bopp li nga def. nga ne diw moo ma ko defloo. wala diw moo ko def nga de sotti responsabilité ci kooku yow sa bopp mënoo jàng.

Sénégal Sénégal ñëpp di woy Sénégal ñëpp di fëgg seen dënn mais Aliou Sa Aliou Cissé moo nekkoon. Euh, entraîneur waaw fàtte xaw nañ ko fàtte sax. Mhm. alors que su fekkoon dañoo daanu. moom la moom la ñuy wax. donc ça veut dire que loolu mooy réeru njiit c'est un travail ingrat. Mhm. travail ingrat donc bépp ku ku képp ku ku jël njiit da nga war a nangu ne kilifte da nga nangu benn affaire. Mhm. bala nga nekk fii di wax ne yenn njëriñ laa ci mën a jël pour sa mbopp danga nga war a xam yenn gàllankoor nga ci war a ja daje. ak surtout métit yi nga xamni ne ko wara nangu bala nga ci dugg parce que so amul compétence hmm. bés bépp liggéey bu la jox su fekke yow tu n'es pas capable da nga war a sukkandiku ci ñeneeni pour def liggéey bi bul nangu jël poste bobu donc moy exemple bi ñu gissé mhm. donc à partir de ce moment man suma ma place de Déthié Fall duma ma nangu jël poste mandataire parce que je sais que amna ño xamné ci bir yewi Askan munoo ñoo ñu nga gëna voilà donc duma ko jël mu nekk lo xamné amna et puis dernier aspect. Mhm. ne da ngay juste ah hein? cest dire que kilifa kilifa bo buggee ne kil boo buggee nekk ci poste kilifa. Mhm. da ngay da ngay juste. maanaam lu am. Mhm. da ngay jël sa wàll ba pare nga soog a wax wàllu jàmbur. mais bul nag fii saa yu ñu problème amee rek eh, nangu bañ wax dëgg. Mhm. te loolu je pense que wax nga ko léegi. Mhm. loolu nekk na loo xam ne am na solo mooy xam dëgg. wax ko nangu ko lu métti métti métti. nga xam ne loolu mooy sa responsabilité sa cër. nga responsabilité nga assumer ko suñ ko deful nag Sénégal day continuer di dem rek du ñu avancé fenn

dàq fi li mel. waa xam nga ci li Femme Action di dugg tey mooy violence bi parce que yow mi nga xam ne yow yaay yaay yaay yar yaay yow yaa war a yar njaboot gi. parce que léegi bàyyi toogatul ci kër gi su bàyyi ñëwatee talatul doom yow mi nga xam ne yaa nekk ci kër gi nag te maire bu njëkk li ma jaaxal ñoom jànguñu woon mais dañ daan wax doom bu jàngul école jàngi métier teel la dugal métier. so demee ba sem war a am ay 11 ans 12 an su fekkee réussiroo sax ñoom du ñu xaaral ay deuxième chance dañ lay jël rek yóbbu la dañ naan ko amul certificat de doo mën dañ laay daal di jël rek yóbbu la sa def ministre wala mécanicien wala nga am un métier mais nag amatul da ngay bàyyi sa doom ci kër gi ba benn âge bi ay vingt ans jàngul école du jàng métier nga bàyyi ko fii muy nelaw di yeewu amuloo loo ko jox ya ngay gis muy sol ay chemise ay dàllu yu cher di sol ay yére xamoo naka lay def ba am ko moo tax euh, perversion bi am bari ci côté bu nekk même ci affaire homosexualité bi parce que dañuy dem ba côté matériel mu primé. parce que kenn ku nekk moyen bu lay jox nga am chemise bu rafet wala t-shirt bu cher wala dàll bu cher da koy def alors ñi nga xam ni saay-saay yaa ngi ci mbedd mi yor seen xaalis di xool xale bu góor bu mën a jël utiliser ko loolu nag jigéen daf ci am daf ci am daf ci am rôle bu mu war a jouer bu am solo mooy nga toppatoo sa doom bi ci kër gi. moo xam góor wala jigéen parce que métier kenn ku ci nekk soo jàngul école war nga am métier war nga jàng école sax am métier. parce que trop de temps da fay tax nga fa trop de temps da fay tax nga am liberté wu def leneen parce que so toogulee fi nga wara tok da nga dem dajok ko xam ne mën na dugal ci sa bop lo xam ne nekku ci won nga dem à la à la dérive moo tax jigéen ñi wara am seetlu ci sen jabot so amé dom ba ben âge bi parce que du ñëpp ñoy réussir école primaire aduna amna ño xam tay ils ont réussi peut-être ils n'ont jamais fait les bas boo bindee seen tur sax xamuñu ko té c'est des modèles amna ño xamné que jang nañu mais jang jàng soriwul mais teewul dañoo teel a takk seen digg laxasaayu liggéey mais léegi loolu amatul xale yi buñ nangootuñu jàng nangootuñu jàng métier c'est là où le bas blesse parce que yaay bi la bàyyi ci kër gi am na ci pas de responsabilité bu sa papa ñëwee ma boole la mais tu as l'impression que maman yi ñooy moom de léegi la fi jógee sorewul de. Mhm. fekk xëy nga dem doxi yenduwoo ci kër gi bu sa papa ñëwee ñu ni léegi la fi jógee yow ana diw dafa génn kon de léegi la dem sorewul di ko protéger. Mhm. te loolu doo doo doo bëgg sa doom da nga koy rey. Mhm. góor da nga koy teel a tàmmal coono. da koy teel a jàngal jàngit métier am lu mu am mënal boppam dara parce que su mënee boppam dara su mënalul sax wàcc la. mais yow sa doom xamloo fu muy fanaan am na ñoo xam ne xam loo fu muy yendu maa ngi dem sama kër xarit mère dañ daan wax xale du am ndey du nekk euh, xale. ñaari kër waxuma la ñaari kër mais léegi fu la neex fanaan fu la neex yendu c'est valable pour jigéen ñi. Mhm. sama xarit bi moo ma invité ne dañuy def kii nee na dafay anniversaire nga bàyyi ko mu dem su guddee ñu woote maman dafa guddi dama bëggoon nga bàyyi ko mu fanaan nga bàyyi ko mu fanaan mhm. mais ñun suñu jamono ñi meewoon ko woon mhm. buñ la waxee demal bu ñu la ñoo julli timis nga ñëw yow noo mën a def bala ñoo julli timis nga daw ñibbi mais léegi xale yi am nañ fit seen yaay bàyyi nañ leen ci bàyyi bi nag xaw ma nag pour avoir trop plus de temps pour seen bopp wala pour être seul xaw ma lan lañ ko dugaloo. mais nee nañu dañoo sonn maman ci daw gi ginnaaw dépense ndax bu ñu fàtte ni euh, denrée de première nécessité yépp a yokku euh, kon nag est-ce que dafa war a tax. Euh, yaay booy yi daal di démissionné am déet loolu yaa ma si tontu waaye nee nañu loolu bokk na ci da dëbb dàqee ngir dépense gi. est-ce que nguur gi foofu duñ leen ci oo tamit. waaw mais mais mais tu sais Asma Khadija loolu depuis toujours ça existé jigéen mosu toog les bras les bras croisés ci këram mairie dañ daan am ay tool yu ñu ndaw yu ñuy bay di ay bisaab ak ay yusa yu ñuy jël di am seen ay volaille di am seen di yar sa benn ganaar di yar sa benn xar di ci am loo xam su ëllëgee ci ngay régler sa ay besoin wala sa ay besoin doom su jullee su sa doom su sa jëkkër amulee moyen li mu am la lay jox li ci des nga yokk parce que dépense ko yokkul yaa ko wàññi te da ngay fexe góorgóorlu ba bu la sa jëkkër mayee sër nga ut ñambaas jigéen du toog inerte ci kër mësul toog mais léegi nag rawatina am nañu moyen bu ñu contrôler suñu waa kër sa doom bu tollee ci jàngi nga xëy solal mbubb loo tabje tabje di xëy fexe ba mu def école nga doog a dem liggéey vrai ou faux mhm. léegi bu baasee foofu te jàngatul yow lan moo la tëree jóg ànd ak moom nga parce que asma xadija teraanga bu la jëkk a teral wala nga wutal ko sa bopp teraanga doom moo ko dax mhm. te sa sa sa sa sa richesse trésor mooy sa doom bi la yàlla bay mhm. nga war ci waslu ak ba mu réussir su fekkente ne yaa nga am benn doom ñaari doom ñii di jàng ka ca des jàngiwul mais jëlal ki jàngiwul nga foo ko yóbbu ba pare di ko surveiller le téléphone est foo nekk mën nga xam fa la xale yi nekk mais léegi dañu taafantaloo damay dem liggéey yi parce que liggéey tu travailles la journée

xam nga ñun dañoo réer dafa am génération boo xam dañu réer mérite dootuñu gindeeku. parce que bu ñuy wax tel père tel tel père tel fils tel mère tel loolu mooy loolu moo la lu toll. parce que nag fa ndox daan taa ba léegi am na ñoo xam ni yar yi leen seen maam yare woon wala seen yaay moom la yare seen ay doom. mais ñi nga xam ne ñoo koy def ñoom tam ci noonu lañ leen yare parce que gis nga jàngul tari neen la. jigéen dafa nit dañ ko war a yar jox ko les bases. Mm-hmm. de yoo xam ne ci la war a nekk pour defar ci àddunaam ñu yar la nga am ngor. am sutura mais léegi pudeur amatul. Mhm. la war a xale di sotti su fees. yaayam toog papaam toog nga yor lu toll ni maa day taali di di waatal ci biir kër gi kenn du la wax mais gis nga yooyu mooy dindi kersa. loolu moo dindi jom loolu moo dindi bàyyi xel sa nawle yara sa doom ci les bonnes manières bu njëkk dañ laan wax jigéen du togg bi tànkam. Hmm. dajale sa tànkam moo am jotu sa doom waaw. di di woddu sër ñu lay jàngal naka ngay woddu am na ñoo xam ba léegi et sont des mères de famille mënuñu woddu suñu woddoo bii day jóg fii bii wàcc ni ñuy lëfër lëfër yi te ay sénégalais sax ñu duñu ay tubaab dellu leen ci source bi ñu delloo ko ci maa ngi nuyu au passage euh, dafa am benn femme bu ma dajeel boo xam c'est la <laughs> c'est l'épouse de Ibader Marema Thiam dañ koy seetaan professeur la nekk jigéen boo xam ne dafay euh, combat pour pour situation jigéen ni. dajeeg ñun di ñu rendre hommage ci émission bi ci discipline bi mm. ci yar bi ak teggin gi mais enracinement et ouverture nañu bàyyi suñu démb xam ne ay jigéen la ñu dañu war yar ci kersa mm-hmm. yar ñu ci sutura yar ñu ci woddu mm-hmm. yar ñu ci waxin mm-hmm. mais su fekkente ni yaay lu ko neex lay wax devant ses enfants mais ça doom du am mesure te ñu war wax ñoo noppi te te nag sama classe gi nga xamante ne bu ñu waxee wax lu tojum réew ñoo fees ci télé yi fu leen neex dem toog. la neex wax y' a pas des interdits c'est dangereux. dangereux très très dangereux te yaay booy euh, gis nga yer ak teggin dafa nek euh, valeur bo xamanteni ni foo dem yóbbu ko. Mm-hmm. lo am am xam-xam ndekete yer ak teggin motax di nga jité sa moromu baye wala sa moromu yay ba pare jox ko wàccuwaayam moo koy tingoom kon nak amna lo xamanteni yay dañ ci bayat xel bu baax bax li nga wax tamit amna solo moy gune buñ len baye ay way man maa école amul damay dem menuisier di. ut métier. la jàngi ah, daara ah, amoon importance maa ngi dem jàngi maman yaay dañu ko organiser woon yaay mënta tarifaatee ni muy waxee doomam mu julli yaay bu xamul farata yi ko war sangu set jaamu yàlla nooy la yàlla sa doom ci diine mais mënul nekk jàngul tari nen la. fokk ñu siwaat njabootu kanaara gi dafa war arrêté. man président Macky Sall doo mais li gën a grave li gën a grave ci loolu. Sénégal ngay gis ñi ñi ndamo wala di bàkkoo lu bon. maa la gën a réew. Mhm. maa la gën a bon. waaw maa la gën a wuyu. maa la gën a yées maa la gën a yées. da ngay dog di nga xam ne maa la gën a bandi. ban njëriñ naam waa léegi dafa toll moment di fawee ay mots bañ koy utal ay soirée ak ay événement immature lan mooy immature. <laughs> ku mature dara ñu koy fawee doo utiliser loo xam ne da nga mature danga am xam-xam. ah ñu nekk ci réew moo xamante ne léegi lu leen neex la ñu utiliser di fowee yenn kàddu ak yenn baat yoo xam non foo am na divertissement am na mais nañu utiliser yenn mots yoo xam ne day defaraat suñu yar ak suñu teggin sa doom mooy li nga wax sa doom taxaw di def naka suñu noonu sa doom bu góor solu jigéen nga kontaan si sa doom di saaga nga kontaan si sa doom di sina di fecc nga kontaan si te corrigé woo ko ñëpp dañuy def jeunesse mais nag lu ëpp tuuru nañ tegaat suñu bopp ngay gis ku jekk ku defaru ba jekk toog ci télévision su waxee rek nag nga dar sa gémmiñ ku mhm. wax feeñ éducation dafa am solo ci nit nañu delluwaat ci suñu démb ñun dañu am bonne manière très bien ñoo sukk xam cër boo war a jox ku mag xam cër boo war a jox xaleel sa doom sa boo ko respecté mu delloo na ko ayca en tout cas maman na solo boo ne ku wax feeñ rek sama xel de dem si émission bi rangu doon def fii moo tax nag rangu ak yoon di bon bonjour au passage ah yi jottalil ma ko ayca mi ngi noonu Khalifa Ababacar maani mi ngi laaj ndax yow yaay laaj ndax man mën naa mën ah mm, moom la nee na ndax mën naa wodd lu dëgg rek a neex suñu borom mënu maa wodd gisoon taay baas ak robe taay baas rek laay sol si tamit foo ne sama yaay dina ma jàngal nag parce temps booy garçon manqué laa woon mi nga ko waaye nag euh, terewul li li tax nit di mën a wodd bu nekkee ci yow euh, du du woddu sër du la du la jaaxal du la jommal mooy euh, am bonne manière am valeur am intégrité dignité loolu moo taxoon suñu yaay dina l'apparence est trompeuse mm-hmm. da ngay gis ko sol tubéy def chemise mm-hmm. soo ko laajee lan mooy waree fam ci dine mu wax la ko ah moom soo ko yóbboo ci waañ wi mu def les bonnes manières bu waxee wax loo xam ni góor su ne mën na koo dégg dëgg loolu du ci du ci du ci du ci du ci takk L'habit ne fait pas l'homme. ah oui oui oui oui gi moom nañ soobu si diine gi yàlla rek a fi ne aywa nit ñi ragal yàlla. nit dee dee de yaa nit dina dee de. ñii dañuy foog ni dañuy dund te duñu dee aywa yoomal xiyaam ay yàlla yàkkamtiw ñu waaye. dañ la laaj doo sàmmee dañ la jox de. allahu akbar. la responsable incombe aux nañ yar suñ njaboot yi te veillé ci di nga rendre compte. liñ la joxoon leen def ak fan nga leen teg Binta ngi reere elle sourit. duñu dañu di loolu moo koy loo nit ñi ragalatuñu yàlla de. li mu wax Asma lépp njëriñ la lépp dafa am solo je pense que coach dina ma appuye ci li may wax kersa da ngay gis xadisu yonent bi sax. dafay ñëw lu bëree bëri da ko ci wax jigéen war na am kersa jigéen war na mel nii donc je pense que bu demee ba yonent bi jox ko autant d'importance mhm. dafa fekk lu war a nekk ci doomu aadama la encore une fois maman li ngay indi am na solo bu baax a baax dañ ciy jàng. ayca ci noonu la ñuy duggee si yow mi mujjee waxti Binta Ba waxtaanee le rapport de l'OFNAC dina leen coow tey nag da ngeen yeewoo di yëngal dëkk bi <laughs> man fexe leen ba police jël si rek. <laughs> analyse d'Abdou Kane le professeur à la FASEC nous parlerons aussi de l'analyse de euh, Maïssa Babou et l'actualité économique de ces quelques pays choisis. mi non, noonu Asma tey moom nous sommes bien gâtés quand c'est important ñaari économistes la ñuy ñu analyser ñu vous l'avez compris gis nañ ko nag rapport yi nga xamante ne OFNAC moom la mettre sur la table du rapport 2019 2020 ak 2021 Asma bëri na nag ay tur yoo xamante ne tudd nañ leen ci ci yooyu le rapport waaye nag gis nañ ni actualité politique bi xëy na nëbb na ko ba kenn waxu ci lu bëri te nag lu am solo la ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci euh, professeur Abou Kane moom mi nga xamante ne mooy assesseur fële ca FASEG ndax nag asma luubal ak ger dafa yàq ci koom lu bëree bëri te donte nag def nañ rapport yi ba pare war na am loo xamante ne xëy na njiitu réew mi war na ko def ngir seen liggéey bañ a nekk nag liggéey bu naxsaay nañ dem teewlu professeur Abou Kane mu wax ñu lan mooy njëriñam ak a ah, office national de lutte contre la fraude et la corruption euh, benn la euh, Sénégal depuis 2012 euh, pour mu a xeex luy ak corruption ci wàllu mu administration. Euh, public yi wala si biir privé bi sax maanaam lépp luy wàllu corruption si réew mi euh, OFNAC euh, da koy xeex. léegi nag lu indi loolu création OFNAC bi mooy Sénégal dafa signé ba pare ratifié li ñuy wax benn convention bu Nations Unies boo pour la lutte contre la corruption. convention boobu Sénégal signé na ko depuis 2003 ñu ratifié ko en 2005 te ratifier la convention bi rek dalay obligé. Euh, ngay def ay euh, yenn digle yoo xam ne mu ngi si convention bi te si digle yooyu bokkoon na ci ne dëkk bu ratifié convention boobu da nga war a créer benn genre kuréel boo xam ne dafay indépendant maanaam du day kuréel boo xam ne du du gouvernement bi moo koy wax defal wala buy def ñu nommé fa ay nit ñoo xam ne tamit dañ leen di protéger ba nga xam ne euh, kenn du mën a xëy nii suba rek parce que def nañu fi dara wala wax fi leen leen arrangé wu rek ñu ne ñu ne kooku dàq nañ ko donc moo tax euh, membre OFNAC yooyu euh, dafa am euh, benn texte bu leen encadré daal boo xam ne mooy tax ñu mën def seen liggéey normalement fekk kenn du leen ci ci inquiété wante nag li ñuy mën a wax ci mbir mi mooy benn le fait que OFNAC am loolu lu baax la ndax dafay wone volonté wu dëkk bi de lutter contre la corruption maanaam dëkk boo xam ne moom amul lu nuroog nag euh, mun nañ wax ne moom jógul pour xeex corruption euh, mais su fekkee ne am nañ ko nag euh, day wane volonté bi wante boo xoolee ba ci biir nag liggéey bu muy def dafay mel ni liggéeyu alerte la lu ñuy wax lu tubaab di alerte maanaam day mel ni day day yëgle wala mu naan nit ñi attention fii de war nañ ko xool waaw ndax moom nag du moom mooy topp ay nit pour na leen dal leen di juger wala dal leen di yóbbu prison ndax def nañu lii wala def nañu lii te loolu of nag di yaakaar ne nit ki def na ko sax si gestion am ba mu koy def si rapport am euh, nit ki mun na ñëw prouver le contraire euh, ndax of nag moom autorité judiciaire yi lay euh, contacter am na droit contact autorité judiciaire yi ne kii nii nañ ko topp pour leeral mbir mi ndax ñun biñ ko càmbaree yaakaar nañu ne am na luubal bu fi am wala am na nangam ak nangam léegi nag autorité judiciaire bi moom mooy tànn. est-ce que moom dina poursuivre nit ki wala du ko poursuivre euh, te bu demee ba ba si fond bi def ay enquête am voilà est-ce que voilà lan mooy nekk suite bi daal maanaam la suite à donner loolu mooy limite wu euh, OFNAC parce que ñoom mën na def liggéey bu am solo comme ni koy defee nii mais fekk buñ ko envoyé président de la république ak autorité yi fekk kenn du ko suivre euh, maanaam dañ ci noppi rek te te loolu la ñu bëri constaté si mbir OFNAC yi même si nag comme ni ma ko waxee léegi. le fait que nag bind sa tur wala wax dara euh, loolu signifié wul ne yow mii da ngaa luubal waaw wante dafa war a am lu ci topp maanaam ñu dem ñu euh, gën koo càmbar pour xam est-ce que lu nag di yaakaar ne yow def na ko def nga ko si wàllu luubal est-ce que dëgg la wala du dëgg mais parfois loolu sax liggéey boobu sax du am maanaam kenn sax du topp sax pour xool ndax ba loolu la wala du lool loolu bokk na si si si si limite nag ndax corruption dafa bokk ci loo xam ne day tardel réew waaw ndax euh, boo xoolee réew yoo xam ne dañoo ndóol comme suñu bos yi euh, bu fekkee ne euh, déjà lu ñuy wax ressources yi dafa raar maanaam bëriwuñu koppar pour mun a investir fépp fu ñu mën a investir te koppar tuuti bu ñu am bi dafa am maanaam corruption bu lal administration boo xam ne bi dafay am lu bëri lu ñu ciy ñàkk loolu day gën a tardel réew mi loolu moo tax mu am solo pour euh, am genre kuréel yu mel ni of nag waaye dañ leen war a gën a dooleel fulaal leen nga xam ne euh, seen liggéey bu ñu ko defee ba pare euh, du ñuy jàpp ne maanaam affaire yu perte rek waaw day du ñuy jàpp ne dañ ko def pour rien loolu daal mooy loo xam ne war nañ ci bàyyi xel. waaw mu mel ni kàddu yi loo xamante ni moom dafa bokk xalaat ak askan wi. Asma OFNAC nag dafa mel ni kenn waru koo off bu ñu defee seen liggéey ba pare dañ koo war a mettre sur la table. Uh-huh. ñi nga xamante ne dénk nañ leen ñu ŋàbb dara ba pare am loo xamante ne lëndëm na war nañ koo gëstu saytu ko mais ñoom comme ni ma koy faral di waxee seen compétence fi mu yem rek la mën a yem ñoom liñ leen sant la ñuy def defar leen ñu liggéey def nañ ko jox président de la république donc li ci topp xëy na justice moom moo ko mën a def encore une fois il faut itam muy am suivi parce que bu dul loolu dafay mel ni kuréel ba dañ ko fa teg rek ngir ñu def benn liggéey te liggéey bu am solo la ñuy def bu ko defee mu nax saay tàbbi géej kenn du ci déggaat dara te bu fekkee ni Sénégal moom moo ratifié li nga xamante ne euh, convention la des Nations Unies bi nga xamante ne dafay créer li nga xam ne mooy OFNAC te of nag nag dëkk bu mu nekk xëy na beneen dëkk du tudd of OFNAC neneen lay euh, tudd dafay wane ne xëy na am nañ volonté di saytu euh, li nga xamante ne askan bi yëpp ko bokk mais à la longue comme niñ koy waxee à chaque fois bu ñu ko defee seen ay rapport ba pare dafay tàbbi géej ñi ciy tudd war nañoo mën a dem xëy na bu fekkee laale wuñ si ñu seetal seen ay der mais da ngay dégg asma ñu tudd ci ay nit encore une fois bu subaa nga gis xëy na sax ay promotion la ñuy am dañuy jël ay poste yu gën a duun wala yu gën a baax jox leen ko ci loolu itam dañuy dem déglu ci may sa baabu moom àdduna jëmale ci wàll bi maam Sidi ak tonton Bakary bu élément bi yembee ñu dem jël ko dellusiwaat léegi-léegi sur le plateau. Les corps de contrôle sont levier principal Euh, gouvernance financière, euh, sous la houlette bien sûr de la Banque mondiale, initiée par euh, Matt avec l'RMP, avant que le nom de FNAC ne soit euh, changé. Et avant, il y a eu toujours l'IG et la Cour des comptes. Mais tous ces corps doivent servir effectivement à veiller au contrôle de, non seulement de, la régularité des procédures, mais aussi du niveau de financement et de leur euh, objet principal euh, pour éviter euh, quand même des détournements de fonds et des malversations. Ce qui fait que ce truc-là constitue effectivement un socle de la bonne gouvernance financière Euh, d'un État. bokk heure moom itamit lépp lu bon yaa ngi horloger ba li <laughs> professeur Aboukane wax moom la dëggal moom itam may sa baabu gis nga ñoom ñëpp ñu ngi sàkku ci muy am suivi ndaxte nag liggéey bu am solo asma la ñuy def mais of nag bu ñu ko naree jàppoon nii saa bu ñu liggéeyee ñu jël ko def ko ci tiroir yi of nag dafay mel ni xëy na benn œuvre d'art rek boo xamante ne xëy na nit ñi dañuy romb di ko admirer te du ñu amal njëriñ donc à chaque fois bu ñu defee liggéey xëy na def ci beaucoup de temps aussi encor une fois dafay laaj mu am suivi li tax aussi sanction yi di baax encore une fois asma mooy tey jii bintaa bu luubalee gis ni euh, asma gis ni rëq nañ ndiggam xëy na asma balaa moo def dina ko xool à deux fois loolu itam dafa baax waaye xaalis boo xamante ne ñëpp ñoo ko bokk sama impôt la sa impôt impôt keneen ak keneen sur les entreprises loolu yëpp ñu boole ko ngir ñu tabax suñu réew asma benn nit wala ñaari nit jël ko luubal ko dem toog di ko dundee loolu itam je pense que état bi moom moo si war a dimbali ñi nga xamante ne ñoo di askan bi transparence bu amee corruption ñàkk rek day indi benn sentiment de confiance entre la population di payer seen ay mhm. impôt bu ko defee plaisir lay doon ci ñoom mais à chaque fois bu ñu fayee seen ay impôt gis ni ma sàmba wala ma demb luubal na ko day tax encore une fois duñ ci sawar président moo ne dafa am ay dossier yoo xam ne si teg concam est-ce que yii nii OFNAC di génn bu ci bokk moom kon war na cee gaaw dindi coñam <laughs> asma di remercier bu baax a baax professeur aboukan Kane nekk fële ca FASEG ci disponibilité waaye itam di remercier Maysa Babou économiste ñoom daal asma gàcce ngalaama heure boo leen woowee rek ci loo xamante ne dafay doxal comme comme réew mi réponse bu favorable lañ lay jox maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. en tout cas merci beaucoup Binta pour cette chronique d'aujourd'hui nee naa leen da ngeen di tooñ waaye dégg naa ngi nekkee moom dama am ginnaaw gars yi nee na ba kenn laal la <laughs> waaw def leen ba Sonko. waaw ku ma laal kaso Aïcha non merci beaucoup en tout cas professeur Don Fakha merci beaucoup fi may tàggoo la responsabilité de am solo am ken ku doon def commentaire sank sama post Facebook nema nit bu responsable moy nek nit dëggantaan l'humanisme mhm. va avec la responsabilité ça yu la responsabilité ñu may Très bien. nga nangou ko d'exercer comme moi. Je vous remercie et à dis Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi, professeur, qui cède justement sa place en toute élégance à Madame Sissi Rokhaya Voilà, Machallah. Euh, coach Moussa, Fitness, en attendant que Madame Sissé puisse arriver, nous allons justement continuer dans la bonne ambiance du sport. Euh, rando, c'est ça Pédestre de la caserne des sapeurs-pompiers. exactement naka jekk amoon nga seen jëmm de. ñu nekk ci ci journée. sapeur pompier naka jekk xamoon naa ne maman sapeur pompier ak waaye takk deri coach daf leen di di di di coaché. naka yow doo nit. dootu war ñoom ñoo ñu coaché dañ leen war a rendre hommage dañ leen war jox sen tier dañ leen wara a sen wacc way comme on dit semaine bi yeb ñu nekkon ci euh, journée sapeur pompier sen caserne ñu organisé woon benn rando fitness rando pédestre en même temps bolé ko mu doon mu doon ben sous l'égide de coach Ngom moom nga xamné c'est le créateur de la rando fitness après rando pédestre bi mu amé mais asma il faut que ñu am ben taxaw sétlu touti rek bu gaaw damay déjee suma partie bi wala journée bi dama koy dello Idrissa Gana Gueye

seen rando PDS ak rando fitness bi ñu defoon le week-end mhm. xam nga lu tax ma ci insister parce que dafa am solo. lan la ñuy wax sauver ou périr. très bien dimbali nit ñi wala nga des fa. Mhm. Sénégalais il faut que ñu jox ñu seen gëdd. xam ñooñu lan la daj xam ñooñu lan mooy seen dund. pour que ñu mën a xam dayo bi ñu am ci biir réew mi ñu delloo leen ko maa ngi ciy nuyuwaale au passage euh, corps brigade sapeur pompier yëpp ak le sergent Yadilou depuis Tivaouane moom mi nga xam ne tout le temps on est euh, en en parfaite collaboration. donc sur ce ñu dem xool yi randonnée pédestre bu la caserne sapeur pompier ci biir Dakar artère Dakar ni ñu ko pendant le week-end après ñu ñëwaat. Mm-hmm. ayca coach Moussa mi ngook voilà loolu lañ leen jëleli woon ci week-end bi ci caserne sapeur pompier yi ñu doon def euh, rando PDS ak rando fitness xam naa élément yi dinañ ci gën a ñëw mu gën a yaatu ci partie fitness bi won len rek il faut que ñuy lëkkaloo comme ni ñu doon wax sank dëkk bi ñun ñep ñuy jappalante di dimbalante pour que ñu mën a mën dem ci kanam muy kooru armée bi ak population bi comme à chaque fois nation armée bi ñuy wax fofu lay jaare ci walu éducation ci walu santé ci walu sport ak ci walu développement armée de ci partition bu am solo donc ñi wax ne randonnée do bàyyi rek bu ben dimanche nga xey rek dem defi ko comme li maman Ndak doon wax da ngay am habitude une ou deux fois ci semaine bi ngay dox wala dimanche bi non wala ngay dem inculquer sa bop ba nga mën tam di dox ay kilomètres yu bari yoo xamante ne dina dimbali sa yaram parce que l'endurance c'est le fait de faire longtemps sans se fatiguer la marche dafa am ay étapes marche rapide marche lente boobu mu permettre la nga mën a am condition physique permettre la nga mën am forme permettre la nga mën am santé donc dañ koy gis ci randonnée bi ñu jagle ko surtout sunu mag yi et dañuy fàtte ne du mag ñi rek la amal parce que quand tu es jeune da ngay yaakaar ne da ngay daw da ngay tëb mais marche bi am na fu muy amee njariñ di la dimbali parce que mooy li nga xamante c'est à long terme donc you wat conseil ñi nga bëgg nañ def sport toujours par li club randonnée quartier bu nek dina fa am région bu nek fédération rando Sénégal. en tout cas merci beaucoup coach Moussa li am solo madame Cissé bonjour nos def sa bleu mauve lan la. bu baax sa rouge noir yow itam bo pare nga wax ñu man ak Binta lan la rafet na ñuy naa bu baaxa baax nuyu ko ci Moussa. fay doon commandant ak professeur bi nga xamantene mo fi jóge ak waa Régie. sensibilisation don de sang acte citoyen et généreux. voilà Asma nit ñi nag mën nañoo maye du ne tey bu ma la ñaanee mën nga maa may du ne mën nga maa may sa yére wala nga may ma xaalis Binta bu ma ko seetee mën na maa may ay bool wala bu may ma leneen ak leneen wala bu may ci dooleem waaye seetlu nañ ne maman Ndak nit ñi nag don dañ koo xawula farataal ñenn ñi dañ ko ragal moo tax dañuy ñëwaat ci alerte ñëwaat ci sensibilisation ñëwaat ci wax ak askan wi ndaxte xam nañ ne don de sang dafa ne boo xamante ne acte bu noble la acte bu généreux ndax ki nga xamante ne moom moo jóg dem ne day maye ji deret kooku dafa def la nga am na ñi nga xamante ne ñu ngi koy def en douce mais pour ñeneen ñi nga xam ne pour ñu def ko suñu genre yi pour ñu jóg def ko c'est un problème ba tax na temps yi dégg nañ ci actualité bi que ne euh, seen banque de sang yi nga xamante ne moom lañu am dafa wàññeeku bu baax a mën nañ wax sax li ci des dafa bëreetul pour bañ a wax rek que ne amatul donc deret bi nga xamante ne moom lañ doon stocké poche de sens yi nga xamante ne moom lañ doon am di ko denc ci hôpitaux yi pour en cas d'urgence pour ñi nga xamante ne dañoo def accident perte sang bu bëri donc ñooñu fokk ñu dimbali leen ndax kenn ku ci nekk sa mbokk mën na am am lu ko dal ñaanuñu ko waaye itam da gis koo xamante ne daf jege day am problème dafay am urgence boo xamante ne il faut que ñu may ko deret mais bu fekkente ne moom ki nga xamante ne dafa deret bi nga euh, xamante ne fa musiba ñu ci bëri ñu ngi ci ñàkk seen bakkan moo tax nag loolu waruñu ko di ko foye waruñu ko di ko caaxaane am na ñoo xam ne ci dibiteri yi dëkk asma ñooñu waruñoo ragal dem maye deret am na ñoo xamante ne ñoom chaque jour a li ma am bëriwul soxlawul nga tuuti wala nga am yaram ki nga xamante ne dafa tuuti parfois mën na maye deret sax ba maye li nga xamante ne moom yaakaaru woon ne am na ko donc ki nga xamante ne am na yaram aussi poids bi ak taille bi du ci dara âge bi aussi a jóg nga dem maye ji deret donc dañ nekk acte boo xam dañ koy faral di def ndax dañ koy fàtte am na ci ñoo xam ne chaque jour dañuy volontaire nag ñooñu amuñu seen fay mais ñi nga xam ne chaque jour dañuy fàtte wala ne moom mooy sa wérgu yaram ndax poche de sang bi nga xam ne moom la ñuy dël jël noonu ci yow mën na am lu bëri lu muy dindi ci yow am na ñoo xamante ne seen excès de fer dafay bëri asthme ñooñu seen fer dafay bari ci seen deret ñooñu war nañ dem di maye parce que loolu dafa baax en même temps ci ñoom parce que parfois da ngay gis ay groupe sanguin yoo xam ne dafay xaw a raadu ci mel ni o ay O positif ay A yooyu noonu yëpp kenn ku voilà O négatif donc yoo ñooñu dañuy soxla ñi nga xamante ne ñoom ñoo xaw a compatible ak ñoom wala ñi nga xamante ne ay donneur universel lañ comme ñi nga xam ne O la ñu am donc ñooñu mën nañu may ñëpp mais par contre nag ñoom ñi leen mën a may bariwul donc loolu aussi il faut que ñu ñu bàyyi ci xel di alerté waat di sensibiliser waat pour ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu mën a sauveter suñu biir ku ci nekk boo ci amul mbokk am nga ci xarit wala ku la jege ñi nga xam ne aussi ñoo mënul a may deret aussi il faut que ñu wax leen ko ñi nga dañoo feebar boo amee hypertension wala nga am hypotension wala nga am diabète wala ay li nga xamante ne moom ay infection anémie wala nga am anémie donc ngay faral di manqué deret donc ñooñu mën nañ leen ko baal pour un certain temps mais dafa am feebar yi nga xamante ne nag c'est à traiter c'est pas parce que da nga mësoon am anémie wala nga am mësa am feebar bu yindi mel rek ne doo dem maye ji deret def ko prétexte buñ ñu nee demal maye deret rek nga ne non non te pourtant bu ñu bu ñu tegee fii sandwich teg fii boisson bu ñu la woowee nga daal di dem donc yooyu nañ koy moytu nañuy faral di dem di maye li nga xamante ne moom mooy deret ndax nit ñi dañ koy faral di ko soxla ñi nga xamante ne aussi ñoo may asma pour euh, ñi nga xam ne dañuy tatouage ñi tatouage ak ñi nga xam dañuy def piercing ñi bënn ak ñi dem tatoué ñooñ pour ñu maye deret il faut ñu toog au moins 4 mois pour ñu mën a maye mais c'est pas parce que da nga ko def rek que mënoo maye deret loolu aussi il faut que ñu ah, def bien préciser ça ñu ñu ñu rappelé ko boo defee tatouage bu bees il faut nga toog toog 4 mois encre bi jeex sa yaram voilà pour nga door a mën a mm, maye deret voilà wala fekkee da nga bënn bakkan wala bënn piercing def feneen foo xam sa yaram donc loolu pour nga mën a maye deret foog nga toog au moins 4 mois pour nga dem maye sinon ñoom ñëpp war nañu mën a dem maye donc parce que hôpitaux yi dañ koy soxla te ñun ñooy am ay cas d'urgence ñu ci bëri di ci ñàkk seen bakkan il faut que fàttali askan wi am ñoo xam ne nag mbuus mee tax ñu ragal boo lu tax doo dem maye deret genre bintaay peut être boo ko waxee ñoom pëli dañ naan boo demee mbuus bu 100 francs la teg li ñuy jël dafa bëri wane nañ que ne yow euh, mën nga partager li nga xam ne moom mooy sa deret ak ki nga xamante ne moom moo ko soxla. en tout cas merci beaucoup beaucoup de femmes euh, ci accouchement dañuy ñàkk deret gu bëri. Mhm. loolu day yokk cas de mortalité euh, ci wàllum jur gi kon nag il est important léeg nga jur bébé boo xam ne wala maman boo xam ne dafa feebar. Mhm. mu soxla deret c'est important ñu koy def je fatigue souvent ma meilleure amie Khady Baros ci loolu parce que elle est au négatif je crois te moom mën na maye ñëpp mooy donneur universel. donneur universel mooy receveur universel. voilà mhm. donc moom euh, dama koy sonal rek su ma gisee affiche rek oo oh rek ma yónnee ko ko oo oh rek ma yónnee ko ko parce que je me dis que voilà nit ñu mel noonu ñoo war a gën a sax mën a may deret merci beaucoup en tout cas madame Cissé. voilà jaajëfal leen bu baax joxante rendez-vous rek Mokhtar segon mooy jiite délégation bi ñu dem maye ji deret. suñu internet yi nga xam ne <laughs> suñu hein. internet yi nga xamante ne ñoom amuñu seen fay ñoom ñëpp nuyu nañ leen bu baax a baax waaye itam balaa may dem asma nuyu caama depuis HLM ci coiffure yi ndax ki la defar ba nga mën a nous ñu mën laa xool amo fayam caama caama depuis ancienne police HLM nuyu naa ko bu baax a baax ci coiffure beeg teinte bu rafet bi 77 871 99 88 ngeen woo ko. Didi Manivar nee na joyeux anniversaire ak Mohamed Sarr son jumeau euh, de la euh, et Macky c'est des jumeaux Mohamed Sarr ak euh, Macky de la part de Pate Sarr depuis Gueule tapé. Tapée ñoo ngi leen di souhaiter un happy birthday dundu leen lu bëri macha vous êtes mignon oh là là macha allah dundu leen lu Bere bere bere, waaw kay mi ngi noonu maam Sidi Diop Papi chalar sama xarit boobu nga xamante ni macha allah xolu or la am teg ci toq jama moom mooy bësam la moom itam tey kon ñoo ngi koy souhaité un euh, happy birthday di ko ñaan euh, ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram yàlla na nga dund ba fekkee njëriñu bébé Mohamed ak bébé Fa tarkalla yàlla bàyyi la ak sa soxna ah macha allah euh, mu di mami yàlla ne yàlla li nga bëgg yaa ko xam yàlla ne yàlla defal la ko fan wi daal ndax man soxla naa la sama wet sama frère de cœur mi fake news la moi euh, Alcati gendarmerie gendarmerie te waa ji mooy li ñuy ubbee euh, émission bi image bobu di circuler wadi ñu japp ñu né mom agresseur bi agressé ci moto bi déedéet wadi transitaire la bu police euh, bu gendarmerie japp ci digënté contentieux bu amone mom ak ben collègue am wala ben client mom moom japp légui nak feulé li ngeen di gis ni locaux gendarmerie wakam la kon nak ñi ñi japp